salaamaaleykum les téléspectateurs de RTT TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen màggalaat bu baax a baax di amaat kontaan ak mbégte waat ak yéen bu baax ndax ñu ngi ci waajtaay bi ba léegi mooy le 27 mai bi défilé le 27 mai bi di am. fële ca Manufacture des Arts. jógee kees ñëw ba nootoo fekk si fii Baara Prestige borom Prestige Couture moom la ñu seet si mu bokk ci participants yi moom la ñu ñëwoon ba fii nootoo seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci waajtaay bi. ak euh, nu muy def ba ba waaj ñëw fekk si xale kees ñoom tamit ndax ñoom pare nañu démb tey doog a ñëw baara it nee na pare na moom tamit jël oto ñëw kees rek moo ko dese ba tax na moom lañ ñëwoon seet si baara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. waaw ñu ngi lay dalal ci laa euh, suñu seen RTT TV. maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. di nuyu sama client yëpp. Mm-hmm. di leen di jàll nuyoo bi si seen bu mag bi di RTT di seen bi gën a mag si Sénégal. Uh-huh. man maa maa wax loolu. <laughs> waaw man la Bara Prestige. Uh-huh. dama dama participer woon si défilé bu mode bi Thiès. Uh-huh. Euh, di remercier bu baax a baax waa association de coutures. Euh, de Thiès quoi. Euh, di woo si di woo sama sama sama client yëpp. di jiite si si woote bi waa association couture fabrique de Noto Goudiama. waaw Baara xam naa ci loolu dinañ ci ñëw bu baax a baax. ci mm-hmm. woote bi du wees. Mm-hmm. mais yow yaa ngi doog a participer défilé bu kees wala. yaa ngi ciy doog a participer. waaw ma maa ngi ciy a participer. Mhm. parce que yaakaar naa samedi bi passé rek si lu mel noonu lañ jógee. ah fii Noto. fii Noto waaw dégg naa def ngeen fi défilé bu rëy rëy. waaw ci nga bokkoon waaw fi laa bokkoon. bi ma bi ma jógee si loolu nag. Mhm. ma ne nag euh, pourquoi pas ma war a demaat ba Thiès. Mhm. présenter waat sama ay modèle Euh, indiwaat foofu yeneen surprise yoo xamante ni bokkut ak yi nga xamante ni moom la indi nootoo hmm. parce que aar bi moom si la nekk te saa bu xëyee ngoon si loolu la ne hmm. lu dul loolu doxuñu si hmm. moo tax ñu ni nag euh, lépp lu ñu woo si loo xamante ni si ñaw la jëm su suñu jot bu ñu ko mayee ak suñu ak suñu temps ak suñu yittee dañ siy participer parce que ay ndaw lañ yoo xamante ni si métier bi la nekk te am na si ay njort yu bëree bëri parce que keroog maa ngi koy wax si euh, défilé bu ma mode bu ma jógee nii ma leen Bara Prestige marketing bi ñu liggéey international la mhm. te loolu di ko xam si kanam incha allah ñoo ñoo si liggéey boobu mhm. te chaque jour ñoo ngi ciy def lu mucc ayib. Mhm. waaw kon nag euh, maa ngi maa ngi défilé bi daal na ngeen ñëw xaar ay ay surprise waaw international moom la ñuy ñaan ndax ndaw lu nekk bu nekkee ci yoon rek day ñaan yàlla mu mu romb dëkkam dem ba international mais nag nee surprise yu bëri bëree nga waaj mais xam nga ne xale kaas kees moom pare nañ si xam nga man doomu nootoo laa ah. fii laa jànge métier uh-huh. fii laa yaroo uh-huh. te gis nga métier mi bi bi ko jàng ko jotee jàng nañ ko ñu ko a jàngee uh-huh. ba suñu patron kontaan si ñun te daal amuñu suñu ragal te moom chaque jour dama koy wax nee na ma baaral lépp lu mën a dégg si mu nekk pusaak da ngay ñëw yëre góor yëre jigéen ñuy fekk xale yi di ñëw yëre yi rafet ay rob waaw fii ay ay tay baas ak yooyu fii bu la neexoon sa doon sa tis yi da ñëw rek nga am sa benn xew wala sa benn concert wala loo xam lu loo xamante ne rek dafa laaj non non waaj bi rek ñun ñu ngi nii nga war ñoo mën a sañseel waaw ñu war la mën a sañseel uh-huh. da ngay da ngay ñëw fi rek jël si nga insecticide ñëwal rek uh-huh. di fekk ay qualité yu la neex ñu solal la ba nga normal nga dem. kon Bara Prestige ay tissus yëpp lay jaay di ko ñëwaale. waaw ñoom euh, bi. Uh-huh. atelier la showroom la. ah bon waaw atelier la showroom la macha allah dégg nga loolu nee na atelier la showroom la bu baax a baax. Uh-huh. waaw boo ñëwee dañ ba nga normal jël sa nga loolu Bara Prestige moo wax loolu noonu. Mm-hmm. gëstu kon yaa ci dégg ndax nee moom dafa sàjj taxaw rek jubal si kees. waaye xale kees tamit ñi ma gis ñoom élage ñi ma fekk démb. Mm-hmm. ñoom waaj nañu bés bi bu baax a baax. 27 euh, bii di ñëw incha allah mm-hmm. fële ca manufacture voiture mais baara bu ñu bu ñu la laajee ci défilé. Mhm. comme passé nga génn nga bii nii. ñu mhm. passé nootoo défilé bi waaj bi. métti mhm. na wala méttiwul ndax yaa ngi jógee ci bii. ci benn même mois bi nga bëgg a bokkaat ci beneen défilé. waaw boo xoolee défilé moom. dafa nekk loo xamante ni mën naa ne métti na méttiwul. ndax boo xoolee laaj na moyen. laaj na xam-xam. laaj na fit tamit boole si. waa te ndaw moom dama naan ndaw fit bu manqué si moom rek. Euh, dina dina fit soo su manqué day su fit day day suul xam-xam day suul ambition. te yaakaar naa yàlla may nañu ni ragalun daal. ragalun ragalun tamit euh, te gunge nañu tamit. ok waaw te défilé boo xoolee lu méttee méttee la encore tamit damay damay ñaax yëpp ñu siy bokk. waaw waaw parce que défilé dafa nekk loo xamante ne si. Mhm. dina am euh, mbóot yu mu feeñ si yow parce que nga ñëw sa client rek. Mhm. du du tax sax nga xam dëgg-dëgg. il faut nga ñëw lan lan moo nekk si yow. Mhm. mais bokk si lu mel ni jongante mel ni mooy tax nga génn dëgg-dëgg li ne si yow. ok loolu moo tax moo tax nag may may profité di di wax euh, ñi nga xam ne ñoo war a seetaan si. ñu mhm. teel a ñëw incha allah. non teel a ñëw lay doon ndax mm-hmm. mise en place bi vingt heures la vingt heures ticket yi deux mille la VIP cinq mille fële la mm-hmm. euh, ca manufacture des arts la mm-hmm. vingt sept incha allah bi deux mille vingt trois mais baara daa sa bés eh, bu baax a baax ah waaj nañ ko daa may dégg xale noto naan baara rek la ñuy topp borom précis ma ne xaar leen ma noto ñoom ñoom a tuddee le terre du déggal li waaw noto yàlla loolu dama koy doxee chaque jour macha allah te lépp lu may def dama leen si bàyyi xel waaw taw euh, jour jël ma taxaw. tax moom kon booba nag du doo fa andi loo xamante ni si. Mm-hmm. surprise day gën a kawe. li ngeen gisoon fii. Ah. lu ko gën a kawe di ngeen ko gis. lu ko gën a kawe incha allah waaw kon wàññ nga ko bu baax a baax. kon war ngaa mën a woo ñu la jàppale rawatina sa patron bi la jàngal ñëw. ba ber ba ber la jàngal ay xale tey. la kon boog war nga leen a woo bi nag maa ngi si woo ñëpp ñoo xamante ni si. Mm-hmm. Euh, baara prestige mos na leen defal loo xamante ni gis nañ seen bopp muy sama client yi mm-hmm. di leen si bu baax a baax di jiita di jiita si woote bi sama client bu bu su mel ni Kéba waaw maa ko si woo bu baax a baax jour boobu noonu ma ne bu mu ko mos a tardé di bu mu jugee si loolu maa ngi woo sama patron Assane Saw di ko yóbbante eh, woote bi mu waxal ma ko mu jottalil ma ko waa association couture famille moom mooy vice président bi ah, président bi di eh, di di moom moom tamit maa ngi koy beral nu beral nuyoo di ko si woo mm-hmm. bis bi moom tamit bisam la mm-hmm. moom it naj ndawam laa tamit. Mm-hmm. waa parce que moom euh, sunu sunu mag la boo moo gis si métier bi. Mm-hmm. te tamit yaakaar naa euh, sunu sunu mag bu baax la daal mun maa wax si moom. Mm-hmm. waa di di leen si woo bu baax a baax di di si woo tayari nootoo yëpp képp kuy tayari nootoo rek. maa la si woo. xam ne xam ne bis bi seen bis la. di si di si woo sama client yi di si woo sama mbokki bopp. waaw ku si mel ni waa Mbaaleen maa leen di woo. waaw di di si woo di si woo waa waa équipe sama sama équipe bu koñ mhm. sama équipe de football bu koñ muy waa làkk bi mhm. seen président bi di sekkaab maa leen ci woo bu baax a baax waaw ñun ñëpp maa leen si woo di si woo sama waa koñ mhm. di si woo waa noto gépp daal ku si mel sama tendre bu baax boobu moom maa ngi koy sama waa la bu baax ndax ñun xale kees ñun ne dañoo bëgg lu baax mais tey buñ ñëw bu nit doon ñëw fii ci noto bëgg xam fan nga mm. nekkee. Mm. exact sa baara kii. Mm. création comme bi nga wax noonu. comme yow da ngay créer yu bëree bëri. baara prestige fan lañ koy fekk exact ak numéro téléphone bi. Mm-hmm. baara prestige moo ngi nekk euh, Noto. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa daral bi fii ñëpp ko xam. Mm-hmm. waaw moo place am moo boo passé Carrefour Noto tuuti rek. soo laajtee daral bi. daral bi fii yaakaar naa képp ku kuy waa Noto rek soo ku miin Noto tuuti soo ko waxee xam na daral bi. waaw nga joxe numéro téléphone bi comme ku miinul Noto bëgg téléphone di 77. 143 08 61. waaw benn benn numéro boobu la te yaakaar naa bu ma si wooyee di nga ma si jot incha allah. Mhm. incha allah kon dégg boo ci wootee rek di ko jot WhatsApp la lépp la ko wooyee rek mu créer la lu rafet ñëwal la mm-hmm. lu rafet a rafet mm-hmm. baara amoon nañu kontaante ak mbégte bu baax a baax fekk si la fii ci sa place waaw ñu leen gën a kontaan uh-huh. a ndax yaakaar naa déplacement bi tamit métti na trop ngeen jóge Thiès ba nootoo uh-huh. uh, uniquement pour programme bi uh-huh. ak tamit pour participants yi jaral nañ ñu ko vraiment waaw dëgg la yéen tamit ñu leen ñaanal bu baax télé bi yàlla yàlla def ko mu nekk télé international incha allah waaw di leen si ndeysaan waaw kontaan mm. nañu àndoon nañoo ko euh, baara précise fekk si ko fii noto mm-hmm. ñu amaan kontaante ak mbégte bu baax a baax man ak Doudou ñoo nekk euh, Doudou moo nekk ci caméra bi ñoo jógee kees ñëw mooy génne image yu rafet yi di ko sant bu baax a baax Doudou Pro mm-hmm. moo ñu jàngal lu ñu mën tey yàlla ak moom la mm-hmm. tey bu ñu ñëwee ba taxaw di présenter émission yàlla ak Doudou la ndax moo ñu jàngal bu baax a baax a baax ba pare jógu ci di ñu gunge tout le temps mais maa ngi nuyu bu baax a baax nguy faama Mamadou Seck ak Khadim Soumaré di ziar Beydi Mbaye di nuyu baax a baax a baax di ziar ñëpp euh, Baara kon ñu bu baax a baax. ñu joxe dig daje ba le 27. le 27 incha allah incha allah. ok merci beaucoup Baara ok merci beaucoup kontaan na